jox leen ma noppi ah. jox leen ma noppi jox leen ma noppi daay wax man lu baax sarafet jàmbaar ji buy jëfitam waykat yi sañ di jotal Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat bismillahi rahmani rahim ak dégloo wa sallallahu wa sallama ala sayyidina mawlana muhammadin xayri xalqi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima Cheikh Ahmadou Bamba ibnu Cheikh Abdoul Ahad Sëriñ Xaban Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal ak sang yu jigéen yi nekk fee soxna Maymunatu Mbàkke bint Seex Suhaybu soxna Bali bint Seex Suhaybu soxna Buso bint Seex Abdul Ahad ak ñeeñ fa nekkal ñépp yéen bokki taalibe yi yépp noo ngi leen di yi ci turu ñii ma wax di leen sant bu baax a baax a baax <coughs> ci daje gi ngeen daje fii ci barab bu tedd bi di kër Seyxul Xadim tam mel ne li ngeen man lépp def ngeen ko ndax itte yi bari na jamono ji xat na bis yi rekk ngeen am yoo xam ne di ngeen koy noppalu yooyu ngeen bàyyi itti yi yëpp ak xataayu jamono ji ñu jàppale sëriñ bi ci bis bi nga xam ne nun ñëpp ñoo ko bokk ndax kiñ koy defal kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seexu Xadim lépp lu leen taxoon a jóg wala ngeen xalaatoon ko wala sax seen xel àggu ca sunu borom xam na ko yàlla leen ko yàlla fay lu koy seen jox nun ñi nekk fii ak ñeneen Tuuba nun ñëpp suñ xol sedd ndax ki ñu defal bis bi nun ñëpp a ko bokk ku ko dégg ku ko gisutoon it dégg nga ko wala gis nga ay jëfam kon nag bu ngeen bàyyi lépp toog fii di ko taxawal ñu ngeen leen ciy sant bu baax te di leen gën a soññi rek ngeen doon benn gën a boole seen bopp te gën a jàppale sëriñ bi sëñ Cheikh Bamba ci bii muy def ngeen gën a àndandoo ak moom te jàppale ko ci ndax lu ngeen ko defal rek sëñ Tuubaa ngeen ko defal xam naa wax ji juróom mi gudd li ma waxoon seen Murtada mi di suñ doom xam ne bàyyi man la ko joxoon bu yàgg a lii mu wax ci suñ kanam suñ xol sedd na ci bu baax a baax kenn mënut a wax lu ko kenn mun a wax ci diine lu ko kon boo amee sa doom mu dem ba mën a taxaw ci mbooloo wax ci diine la mu war a wax yow sa xol dajay set te ñaari yëf rekk am moo di al amru bil maxrufi wa nahyu anil munkar digle lu baax ak tere lu baax wax wu ne ñu di ko dégg di ko wax di ko nit ñi di ko dégg waaye lu rëy la ci lislaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Xadija mos na ko mos naa wax sayyiduna Xadija ne ko am na juróom-ñett fukki junniy nit yoo xam ne ña nga sawara te daana jëf jëfi ab yonent mu laaj ko loolu nu mën a amee mu ne ko dañ daan gis nit ñi di def lu bon te seenu xol du ca nox noxi waxuma tere ko waaye seenu xol du ca metti moo tax képp ku ñuy déglu wala nga ne ci kanam nit ñi nekk kii ñu doon waxtaane loo war a digle ci lu baax da ko war a di waaye loo tere lu war a tere ci safane da nga ko war di tere ak lu la ca mën a fekk ginnaaw leen fi wax lu tënku la waaye lu yaatu la wax na ci diine wax na ci sëriñ bi wax na ci jikko wax na ci li wax lépp kon jërëtul ñuy guddal wax ji ndax itte yi bari na kon rek sant rek dellu di leen sant ci ngeen ko defee te gën koo yaatal te gën koo fonk bis mënu fi yàlla fekkalee ak jàmmit ngeen gën ko yaatal gën ko rafetal mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gën a sant sama mbokk yi ma toogal di leen sant bu baax yéen it ñu di leen sant ci seen tur di leen gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala